fanweer ak juróom benn tundu Sinaay salaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub mu tëral ngir am jàmm ju ak moom ba faaw am na nu mbégte ci li mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci njàng mi weesu gisoon nanu ni yàlla doon toppatoo bànni Israël ca biir màndik mu wow koŋ di leen jox ñam wu jóge asamaan ngir ñu bañ a dee ak xiif waaye gisoon nanu it ni bànni Israël doon diingate yàlla ay yooni yoon ndax seen ñàkk ngëm ak seen ñàkk kóllëre tey jii dinanu gis ni yàlla feeñoo bànni israel ci biir màndig ma ngir jottali leen yoonam wu sel wi nu ngi jàng ci tawreet téereb gàddaay ga sar fukk ak juróom ñeent aaye bu jëkk bi nee na ca bés bay mottali ñetteelu weer gannaaw ba ñu génnee misra la bànni israel agsi ca màndingu sinayi daldi fay dalal jànnoog tund wa ñuy wax sinayi fan la musa ak bànni israel tollu woon léegi ci seen tukki ci màndig ma agsi nanu ci tund wi ñuy wax sinaay ndax fàttali ngeen fan la musa nekkoon bi ko yàlla jëkkee woo jaare la ko ci as ngarab su doon tàkk te lakkul ca tund sinaay woow la nekkoon waaw gisoon nanu ni yàlla waxe woon ak musa ca tund sinaay ne ko gis naa bu baax sama fitnay xeet ca misira kon wàcc naa ngir musal leen léegi nag ñëwal dinaa la yebal misira dina ànd ak yow te lii mooy firndeel ne maa la yónni boo génnee ibanni israel misra dingeen jaamu yàlla ci tund wi ndax yàlla defaloon na musa li mu ko digoon waaw kay gisaat nanu ne yàlla kuy sàmm kóllëre la ndaxte fi nuy jàng ci tawreet musa ak mbooloom israel mu rëy mi ñu ngi ci taatu tundu sinaay ni ko yàlla dige woon musa ci ngarab sa doon tàkk nanu wéy nag ba gis ni yàlla feeñoo waate musa ak bànni israel yépp ci tund sinaay mbind mi nee na noonu musa yéeg jëm ca yàlla aji sax ji woowe ca tund wa ne ko waxal ak askanu ba te jottali bànni israel lii gis ngeen ni ma def misira te yéen ma boot leen ni ko jaxaay di defe ci ay laafam ba indi leen fi man léegi nag su ngeen ma déggalee bu wóor te sàmm sama kóllëre dinaa leen seddoo ci xeet yépp ndax maam moom àddina sépp te dinaa leen def kuréelu ñi jege yàlla buur bi di xeet wu sell loolu mooy kàddu yi ngay wax bànne israel noonu musa dellu woo magi mbooloo ma jottali leen lépp li ko aji sax ji digaloon mbooloo ma mépp mànkoo ci ne lépp lu aji sax ji wax dinanu ko def ndax dégg ngeen bu baax ni bànni israel tontoo woon yàlla ñu ne lépp lu aji sax ji wax dina nu ko def li bànni israel waxoon ndax dëgg la ndax dinañu mën a sàmm ndigali yàlla yépp yàlla moom xamoon na bu baax ne bànni israel mënula def lépp li mu santaane li yàlla bëggoon mooy ñu xam seen ñàkk doole ngir neex yàlla te nangu seeni bàkkaar fa kanamam te gëm xibaar bu baax bi ci mbirum ramukat bi naroona gane ci àddina ngir jot bàkkaarkat yi yàlla baaloon na seeni maam ibrahima ak isaaxa ak yanqoba seeni bàkkaar ci kaw ngëm rekk te yàlla dafa bëggoon a baal bànni israel seeni bàkkaar ci kaw ngëm itam yàlla mësula am weneen yoon wu doomi aadama yi wara mucce ba tax mbind mi ne sàmm yoon wi taxul kenn jub ci kanamu yàlla waaye ba fi nu tollu waa israel yaakaaroon nañu ne mën nañu mottali lépp lu jub ci seen pexey bopp ñoo gàtt xel fàtte nañu ni ñu moye woon yàlla ay yooni yoon xamaguñu woon ni seen bàkkaar rëye ci seen xalaat bàkkaar amul solo noonu wante ci bëti ki leen wara àtte bàkkaar lu am ngaañ la yàlla ku sel la te mat sëkk te mënula nangu daara lu matul waaye ba tey bani israel ràññee gu ñu woon loolu loolu moo waraloon seen tontu lu ñàkk xel loolu maanaam ñu ne lépp lu aji sax ji wax dinanu ko def wante yàlla dafa fasoon yéene xamal bani israel ne ku sel la ku mënta dékku bàkkaar la léegi nag nanu jëm kanam ngir gis ni yàlla wàcce ci tund sinaay ngir feeñal ndamam ak selaayam te jottali bànni israel fukki ndigal yi mbind mi nee yàlla aji sax ji ne musaa demal ca bànni israel te wax leen ne fii ak ñetti fan aji sax ji dina wàcc ci tundu sinay ci kanamu mbooloo mépp sàkkal dig wu nit ñi dul jéggi te ne leen moytu leen a yéeg ci tund wi walla ngeen laal pegg bi képp ku laal tund wi nañu ko rey te bu ko loxo laal waaye nañu ko sànni ay xeer ba mu dee mbaa ñu jam ko ay fit mala mbaa nit lu mu ci doon nañu ko rey noonu ca subas ñetteelu fan ba mu am ay dënnu ay melax niir wu tal ëmb tund wa te liit gu xumb lool jib te ci dal bi ñépp di lox ci kaw loolu musa génne mbooloo ma ca dal ba ngir ñu daje ji ak yàlla taxaw ca suufu tund wa fekk tundu sinaay wépp di saxar ndax aji sax ji moo fa wàcc ci biir safara saxaar si di gilli mel ni saxaarus puur tund wépp di jëngu bu metti liit ga di jéb di jege te di gën a xumb noonu aji sax ji wàcc ca njombaxtalu tund sinaay yi gannaaw loolu yàlla wax kàddu yi yépp man may aji sax ji di yàlla sa boroom bi la génne réew misira këru njaam ga bul am yeneen yàlla ndare man bul sàkkal sa bopp xërëm ndaxte man maay aji sax ji di yàlla sa boroom bul jëfandikoo turu aji sax ji di yàlla seen boroom cig neen ndaxte aji sax ji du seetaan mukk kiy sofental turam del fàttaliku bésu nooflaay bi def ko bés bu sell teralal sa ndey ak sa baay bul rey nit bul njaaloo bul sàcc bul seedeel sa moroom lu dul dëgg bul xemmeem sa kër moroom bul xemmeem jabaram wala jaamam bu góor mbaa bu jigéen nagam wala mbaamam mbaa dara lu mu moom noonu mbooloo mépp teewe dënnu yi melax yi liit gi ak tund biy saxaar ñu ragal di lox dànd ko fu sore ñu ne musa waxal ak nun yow ci sa bopp te dinanu la déglu waaye bu yàlla wax ak nun lu ko moy dinanu dee noonu musa tontu mbooloo ma ne bu leen ragal nattu leen moo tax yàlla ñëw ngir ngeen sax ci ragal ko tey bañ bàkkaar noonu mbooloo ma taxaw fu sore fii lanu wara yem ci mbind mi tey waaye bu soobee yàlla émission bi ñëw dinanu benn bennal te faram fànce fukki ndigal yi yàlla jottali bànne israel ci tundu sinaa yi waaye bala nuy tàggoog yéen am na lu nu yàlla bëgg xamal jaarale ko ci linuy nuy jàng tey li wara jàpp nag mooy lii yàlla ku sell la te mënunu ko jege mukk ci sunu pexey bopp moom la mbind mu sell mi jàngale bi mu naan nit ñax la te yàlla safara suy lakke la ci nu sunu ndoorteel jàng tey dégg nanu ni bànni israel waxe musa nan lépp lu aji sax ji wax dinanu ko def wax nañu loolu ndaxte ràññee guñu sellaayu yàlla dañu fogoon ne mën nañu neex yàlla ci seen pexey bopp wante gannaaw ba leen yàlla feeñoo ci tund sinaay seeni xalaat soppeeku nañu lool sax bi bànni israel teewee dënnu yi melax yi ak tund wi saxaar di dégg baatu aji sax ji di jib di leen jottali fukki ndigal yu sell yi ñu daldi ragal di lox dànd ko fu sore te di wax musa naan waxal ak nun yow ci sa bopp waaye bu yàlla wax ak nun lu ko moy dinanu dee noonu la bànni israel tàmbalee ràññee sellaayu yàlla ci taatu tundu sinaay yëg nañu li mbind mi wax naan nit ñax la te yàlla safara suy lakke la ci jataayu yàlla aji sax ji ndax bànni israel mën nañu wax ak kóolute naan amul jafe-jafe lépp lu yàlla wax dinañu ko def déedéet léegi bànni israel ràññe woon nañu ne amoon nañu ab jafe-jafe bu rëy sax léegi nag gisoon nañu ni yàlla ak yoonam selle wante ñoom selluñu dañu meloon ni ñax mu wow fa kanam safara suy lakke yow muy déglu tey nag ndax ràññee nga sellaayu aji sax ji ndax gis nga ni yàlla ak yoonam mate te jub ndax xam nga ni sa xol ak sa jëf matadee te dëng fa kanam yàlla aji sell ji wala boog danga mel ni bànni israel meloon di xalaat ne amul jafe-jafe lépp li yàlla wax dinaa ko def ci sama kaw jëf yu baax yelloo naa dugg àjjana ci lu wér xalaat yooyu dëppoowuñu ak xalaati yàlla ndax aji sax ji mën na dëkk ak sobe lu taq bàkkaar ndax yàlla mën na nangu lu matul mukk yàlla ku sell la te mënula dekku lu sell di ndax ràññee nga loolu wala boog danga yaakaar ne say jëf yu baax mën na far say ñaawteef su fekkoon noonu la kon yàlla du àttekat bu jub ci misaal lu nuy xalaat cib àttekat bu fekkee ne dafay wax ab buumkat naan ko tooñ nga ci li nga rey nit waaye ci kaw jëf yu baax yi nga defoon ca jamono yu weesu ya duma la topp dara demal sa yoon lu nu war a wax àttekat buy jëfe nii dina nu ko teg àttekat bu jubul mbokk yi war ngeen fàttaliku ne yàlla moom àttekat bu jub la te mënula fàtte bàkkaar yi noonu borom bi yàlla miy àtte àddina lu jub rekk lay def te li njub teg yàlla dogal mooy peyug bàkkaar moo di dee ak safara sudul fay mukk jëf yu baax yi nuy def mënuñu far suñu boru bàkkaar ci lu jëm ci sunuy jëf yu baax mbind mi nee na ni ku am sobe lanu mel nun ñépp te sunuy jëf yu jub yépp xasaw ni sagar yu tilim yàlla aji sell ji dafa mel ni safara suy lakke te jëf yu baaxi doomu aadama dañu mel ni ñax ci sunu njubteg bopp mënunu taxaw fa mu taalu àtteb yàlla bu sell bi ndax bànni israel ñeme nañu dugg ci safaras yàlla mi wàccoon ci kaw tund sinaay ndax jéem nañu yéeg ci tund wi yàlla nekkoon ndax takk nañu seen fit ba jege tund wi doon yëngu fees ak ay dënnu ak i melax te doon saxaar mel saxaarus puur déedéet jegewuñu ko de li bànni israel defoon kay mooy ragal bay lox kenn ci ñoom ñemewul woona jege tundu sinaay ndax tiitaange gu rëy gi ñu yëg fa kanam selaayu yàlla aji sax ji waaye tiitaange googu baaxoon na lool ci ñoom ndaxte kàddug yàlla dafa wax ne ragal aji sax ji mooy kenul xam-xam mbokk yi baal leen nu àq ndaxte sunu jot jeex na waaye nu ngi leen di xiir ci ngeen fàttaliku li nu dégg te gis ko tey maanaam yàlla ku sell la te mënuloo ko jege ci sa pexey bopp ci njàng mi di ñëw ndegam neex na yàlla dina nu niir te firi ndigal yi yàlla jottali bànni Israël ci tundu Sinaay ba mu ko defee nu ngi leen di tàggu di leen gërëm ci déglu bi di leen fàttali it ne su amee ay laaj yu ngeen bëgg a laaj mën ngeen nu bind ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 saint yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat ci li kàddu yàlla wax naan ragal aji sax ji mooy kenul xam-xam